ne procédure démocratique yi nga xam ne ak procédure administrative yi nga xam ne suñu réew ci la ñu tënku est-ce que ñi ñu am yaakaar jébbal leen ko ñooñu jàppewuñ ko lu dul foyekaay wala ku àndul ak ñoom wala kuñ foog ne àndul ak ñoom parce que ñoom dañoo jàpp ci seen xel bu gàtt na ku am beneen gis-gis rek àndul ak ñoom te ñu foog ne laytaayu démocratie du loolu moo tax léegi balaa may ñëw maa ngi proposé ci collectif bi nga xam ne Free Press dama ne leen nañ ko ñemee ne CNRA dootuñu ko reconnaître tant que Babacar Diagne mi ngi koy jiite comme président parce que nañ waxante dëgg le problème c'est lui buñ fi nekk di wax tant que soixante onze ans il est à la retraite code de la presse bu bees bi wax na nañ changer CNRA nu muy doxee kon ñun ñëpp nañ ci mànkoo ci xalaat yu jot a rot léegi ñu bëri rafetlu nu gis-gis boobu ne nañu nangu ne comme nii lay doxalee dañ koy wax jëfal mu jëf daggal signal ci lan moo xew mais Cheikh yaa ngi woon France manifestation gilet jaune les black block ba ñuy toj Élysée ba ñuy yéeg Arc Triomphe en direct sur BFM TV la woon ñëpp di ko seetaan ñun dañoo mën a am démocratie bu gën a rëy bu France ñëpp ko doon seetaan ba gilet jaune yi di wëlbatiku di agressé ay journalistes sax teewul journalistes yi continuer li nga xam ne moo di seen liggéey waaw yow nga warlook nit bi ci njëkk meeting deux mille vingt est-ce que jaadu na ci réewum Sénégal benn njaboot ne dañoo bëgg a daja ci benn place ci benn waxtu wax lu ñu xalaat ci réew mi nga ne du fi amee loolu mooy premier problème bi yow sa njaboot sañ koo def keneen du ko def parce que il faut que dans ce pays là je pense que ñu koy def muy am ay avancé constructives kenn du mujjee poussé ba mu réer loolu nag ku foog ne askanu Sénégal dina la ko may da ngay nax sa bopp. wala xamoo nu réew mi tëddee sunu baay Sidi Lamine ñas dafa jël dundam jagleel ko askanu senegal kon askanu senegal tey ji warloog Walfajri taxawu bu mucc ayib taxawu bi nag romb na journaliste parce que képp ku ci am looy joytu wala lu la neex wala naqdi buntu journaliste ngay ñëw fëgg muy syndicat muy parti politique muy leneen lu mënta doon buñ jàllalewul yow li la naqadi ba say kilifa mën ko jot kon daanaka kenn du si jot ba di ko saafara kon bu nu dalee ci anam wu ñaawee nii Walfadjri la wareef la kii képp kuy doomu sénégalais nga jóg taxaw lànk bañ moo tax seen communiqué bi ngeen def woote sitting bi ngeen di def mbiru sénégalais yi la du mbiru wal fajri du wal fajri moo woote mooy ñëw leen ngeen defendre loo xam ne yéen ko moom fi ngeen di joytoo seen i problème fi ngeen di fexe ba am yaakaar ne seen problème dina saafaraw mais en temps ñun corporation bi nañ dëggu ci lu ñuy def nañu dëggu ci lu ñuy def dëgg ci lu ñuy def mooy du ñu yem ne coupé nañ signal Walfadjri tey problème mu CNRA nan ko dénoncé tey mu jeex déedéet dañuy wax ne définitivement il faut que lii dootul amatu ci réew mi su may daaneel gis ngeen lii ñuy def nii ñu koy reposer euh, euh, di wax ne opposition bi dafa jënd ay temps en temps d'antenne wala loolu dama fekkee dama nekkoon ci télé nag ñoo dàq jënd temps d'antenne man ñaata yoon. lañ chamboulé sama programme parce que ñoom ñoo jënd seen temps d'antenne dix millions yu dul jeex opposition bi amuñu alal boobu lii may wax nii am na kilifa gu mag bu nekk biir CNRA ma sonn naa ko laaj ma ne ko yéen a ngi tàmbali loo xam ne di ko bàyyi soit da ngeen koy arrêté ñëpp wala ñëpp dugg ci même logique bi parce que munoo leen bàyyi ñi nga xam ne yor na alalu réew mi meeting fu mu soree ak lu mu métti métti ñu fexe ba génn koppar ngeen chamboulé programme télévision yi bàyyi leen ñu def seen meeting ba mu jeex opposition bi ëllëg subel dina ko bëgg a def munoo leen ko tere mais sañu ñu woon tere bi nga xam ne moo nekkee ci wàllu nguur gi lu luy dëgg te nag CNRA ñuy laaj rek xanaa bu ñuy euh, def régulation média privé rek la ñu war a réguler RTS mi ngi fi nañ woon te dëgg opposition du fa jàll leneen lu neex président de la république du fa jàll kon il faut qu'on soit plus honnête ñun suñu biir suñuy xeex ñu xeex avec sincérité avec des principes principes yi nag mooy ñu yemale ñëpp yamale ñëpp nag mu ngi dorte tey lii ñu teg wal fajri ñu na ñoom balaa ñuy yegg sax ci sitting bi seen xel dellu siwaat ñu delloo signal bi parce que li ngeen di def amul njariñ parce que li suñu maam ju baax joo xoon Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum na dafa am yu yu bari ci réew mi ak ci àddina dafa xewwi léegi mag muy mer di buusi tuñ dafa xewwi waaye coupé signal dafa xewwi ndax teewul ñu ngi koy seetaan ci réseau sociaux yu lépp lu xew Mbàkke gis nañ ko lépp lu xew Mbàkke gis nañ ko amul lenn loo xam ne ump nañu Mbàkke teewul coupé ngeen signal bi kon objectif bi ak résultat bi est-ce que atteindre ngeen ko atteindre leen ko loo leen ci jëlee mer guuxilees fëgg dënn loolu ngeen ci jëlee kon delloosiwaat leen xel yi ñu jéem a tabax réew moo xam ne day lalu ci ay cëslaayu démocratie yu leer nañ ku ñekk ñu yemale ñëpp